asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Fall ñu ngi lay nuyu yaa ngi ñi nga àndal ñëpp di am mbégte ak kontaan ci daje yow fii ci ngir waajal lu am solo luñ jublu dañ ko ànd ak bokk yi ak julli ak taalibe yi lëggéeyal sëñ Tuubaa day lu mënta ñàkk di farata ci nun ndax sunu waju tedd yi dañoo futtikoon liggéeyal sëñ Tuubaa te bu fekkoon kenn mën naa bañ a liggéeyal sëñ kon ñoom ñu bañ a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa dina duggaale ak yow waaye tëddi nelaw dafa mayul dara bu doon may dara kon yonante bi dañu fab lépp tekki loxoom waaye xare na sàmm na coono bu ne daj na ko ba sun borom jox ko li mu ko jox daj na ko ñaan ñàkk su jëndee da am te yoon wi yoonante toppante la ak yoonu jaayante te ñaar yëpp dafa am ci liggéey bi topp sa kilifa waaye jaayante moom liggéeyal ko mooy sabab si boo gisee nag ma gën cee sawar dafa am sama rakk ñuy wax sëñ Abdou Lakram dafa ñëw ci man ni ma am sut ma ne ko Mbàkke mu ne ma da ngeen ñu ëpp saas ndax da ngeen fee fekk sëñ Abdou Lahat fekk fi sëñ Saliou liggéeyal ko ba am ngërëm may bëgg a dabu nag ci yow loolu ma bëggoon nag nga jox ma barab ma tabaxal la ko moo ko bëggee te laa ko joxoon sama kër gee ci aslem waaye ma dem ba ca biir sama xel dalut ndax loolu sama bopp kes la comme nag mbooloo daa ne ci gannaawam mu war leen dem yóbbaaleen moo tax ma laaj liggéey bii ndax damaa déggoon sëñ Saliou di wax ni boo gisee mu wut xel koom tool yi toll ni nga xam ni boo sottee daaram yëpp dana toll ak ñëw wala mu ëpp leen di fa murid ngir bokk ñu liggéey fi sëñ dafa am bàkkaar yoo xam ni astaxfirullah du ko dindi ñaqal sëñ Tuubaa moo ko dindi loolee nag ma yéene ko yéene ko ñu mu yéene ko samay bokk yéene ko jullit yi moo tax ma laaj sëñ ci bi di ko def dafa am ay bis yoo xam ne nag moog liggéey bi laa yemale bis bi ma gën a ñor ci kaw suuf mooy màggal sëñ Tuubaa gi ndax sëñ Tuubaa ko digle ba ma koy commencé di sañc kër métti na ci man ndax booba damay lebi nag ak yu ci def ak yëf waaye sëñ Tuubaa teggal na ma loolu ba duma ci ñàkk benn dërëm lépp doo nga yaa koy def màggalu suñu daal gi noonu la demoon yàlla teggal na ma ko ba du ci ñàkk benn dërëm lépp doo nga yaa koy dajale di ko def ñooy indi xar yi ñooy indi nag yi ñoo koy indi di ko togg seen bopp ni ñu koy defee ci màggal ko mag waaye bis tam dama ci wut bénéfice te duma ci sàkku dara damay xaar ndax ki indi li ma ci def sañu ma koo soñ muy sama kilifa muy sëñ Tuubaa ndax moo indi dépasse ba noppi du añ si noonu mu koy defee ci màggalam gi noonu la koy defee ci màggalam si laat ci barkeb barkeb sëñ Tuubaa ba ci topp mooy gàmm gi moom itam noonu la dise woon ci man waaye moom itam ba ndëgëni lépp day ñëw te sama dara du ci dem taalibe koy def te tallu ma kenn loxo ni ko sàkku ci yow ndimbal du nguur du commerçant du am d'affaires ndax sëñ Blaata ma tere woon laaj moo tax du ma laaj kenn dara ku ma jox siif nag ma defal la ko ci bu desee ma sarxe ko waaye du ma ko denc <laughs> ngir di ko lekke walla ma koy jox kenn xalaatuma ko màggalu sëñ Blaat bu ñëwee nag yi bu desee noonu laa koy def magal gu mag yi bu nag yi ñëwee dama koy séddale dama koy séddale wattali ndax du ma ko denc ndax bis boobu lañ am ci man kon nag lu ma ci am dama ko gi itam noonu la defee jag bis bi itam bañ koy doog commencé noonu la méttoon ndax maa ko ruñ woon manam manam kese di def sama alal ñaari yu njëkk yi métti na ba nga xam ne ay bor dama ci topp ndax bor yoo xam da ngay da ngay liggéey ba ca suba ba am ñetti fan ñu ànd la facture ngay fay facture 4 millions facture 5 millions amoon na ci njëlbeen ko waaye lépp jaax na. te it néew ma kenn jox ma benn dërëm lépp sëñ tubaa koy def ak sama njabootu bopp nga ma yàlla booleel kon nag bis bu mel noonu ñeenti bis yooyu ñeent wala juróom ñeenti yooyu mooy yi nga xam ne ñoom laa gën a fonk ci kaw suuf ndax sëñ Tuubaa moom yaakaar àdduna ak moo ko digle sëñ Abdou moo boole ci sëñ Tuubaa kooku mënu ma ko way te su boppam boobee sëñ Tuubaa ko digloon bi mu fi jógee sëñ si di euh, woote ko mu ñëpp ñu def ñu koy doxal kon bis boobu sama bisa li ñu am yëpp ñoo ko ñoom ñoo ñu ko jox te benn benn yoon lañ koy soxla ci àdduna sëñ Tuubaa sëñ sëñ Tuubaa gi la soxla sëñ Blaat ak màggalam la soxla sëñ Saliou mi nga xam ne nag moo tax ma jëriñ sëñ Tuubaa itam gàmm gi la am gàmm gi la ma jox ndigal ma koy defee ci kër sëñ Tuubaa waaw bis bii nag maa ko laayal sama bopp ci anam yu bari nag gannaaw bu ma jiitlee sëñ Abdou Karim moom moo ko sàkku ci man bëgg bëgg ma bëgg bëgg li ma am mu am ko fi jaar mu jaar ko sëñ si dañoo bokk suñu laat mu doon sama mag mu wëlbati ko toogaayab toogaayam di sama wajur wëlbatiku ñu bokk sëñ Saliou muy sama jëwon di sama sëñ ñett yii da ci am ak lii ma la wax te maa ngi gis njariñ li njariñ li bàtti li nag laa wax ndax moom man duma laaj kenn dara naneguma ko du nguur du kilifa du keneen la ma sëñ Abdou Lahad nag ne ma am sëtu ma ne ko mbàkke mu ne mbaa yaa ngi jaxasoo nit ñi ma ne ko waaw mu ne ma xam naa ko waaye na ko yokk ndax boo amee suxlas fukki dërëm làmba du jóob benn dërëm ci sa poos waaye am nga fukki nit bu la ko ne joxee dërëm soxla sa faj dañ fay toog di xaar leneen loolu mooy jagal liggéey bi at mañ ko jëkkee def desoon na yaakaar naa ñeent fukki barigo ceeb wala juróom fukk dama ne am sama sëñ Seexu naa séddale ko nit ñi bu ma xam sax bu mu jaar sama kër kon lanta naa loolu biir xaar taxatun fexu maatu mooy daru salaam mbokki wal lanta naa loolu daru salaam fa ci daru salaam laa lay wax nii dama ne lëggéey bi daru salaam bañ ko jëkkee def ceeb bañ indi ndax lëggéey bi dafa gaaw des na laa wax ñeent fukki barigo xaw ma juróom fukk waaye dama ne am sëñ Seexu naa nañ ko jox nit ñi bu mu dugg sama kër xalaatuma du ma wut bénéfice du wutu des ci lan na ci bisu sëñ Tuubaa li war ci bis boobu daa war lu fekk fii lu mu fekk nga yor ko mu yóbbaale ko dañuy indi moom xuru fee des waaye lu mu fekk na ko war yóbbaale lii mooy pas-pas lii mooy liggéey sëñ Tuubaa kon nag li ma leen di woo lii dong la bu dul lii kenn du xam sama soxla hmm? sant naa nag taalibe yi ndax dañoo bàyyi seen ndey bàyyi seen i baay bàyyi seen i lal bàyyi seen i kër ñëw tëdd ci suuf ay climatiseurs lañu amoon waaye mi la nekk ay salle bi lañu amoon waaye ci woon àll bi la ñuy dem daan neex waaye di lekk ci mbooy mi loolu nag sëñ ko jaral kon sëñ Tuubaa mi leen jaral nag maa ngi ñaan kàttanam mu tëbb leen kàttan ak ndimbal saay rek baatin bala ñu soxla tey ñu am ko li daal mooy kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu